wa huwa ash-shahru al-fadil wal-munasabatu al-azima allati la tajuusu an tamurra alayna doona an tatruka asaran fi tafkiirina wa masaari xayaatina innahu shahru taadib wa tadib li annana kama naalamu in al abda yakunu aqrabu ila llahi subhanahu wa taala indama yakunu saa'iman fan nafsu tasfu wa makaarimul axlaaqi tuxiitu bil insaan fa tajxaluhu yaatifu ala alfuqaraai wal masaakini wal ay wal aytaam waxat kasral ahadiisu fi tibyaani fadaaili sawmi wa minha annahu qidaaun lirruuxi wa tatxiirun linnafsi wa ismatun lilisaani wa tarwiidun lishahawaati wa xathun ala tafkiiri fi masili fi masili joon fi masiiril jawama wa taqwiyatun lil iraada wa yakfi an nusi an nushira fi haadha almaqaam ila ma qaalahu alcheikh fi haadha sadr laa silta maa hiya aw zaarin wa qaadiya aw taarin wa taarida axyaarin min alxalad wa saafidan kulla sheytaanin bima maahu wa muthifan li dawi lixsaani bisafadi wa mudhiban kulla axsaanin nadiqu biha fi dahri afidatan yaa mudhiban nakadi wa zaidan kulla aamin ma nafuusu bihi min joodi muhnin karimin naafihi sayedi yaa shahra rabbin karimin fiika jaada lana bi laylati alqadri daati alfadli warragabi inni uhibbuka hubba daati daa talabin min maaliki fiika isaadan bila awali dellu wax ne ko lishhad bi kaw nii abdallahi fiika bila xish wa lishhad bi anni tubtu min xawari sir daa xufoolin li rabbin laa sharika lahu fi lmulki walhamdi rabbil jinni wal bashar laa silta dayfan kariman qad yubashiruni fi sirri wal jahri bil ihsaani wa bushari assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu daayiratul muqaddam muqaddam daayiratul muqaddamatul xidma ñu leen di ci njiitul sëñ Afia Buso di leen nuyu ci turu alxalifatul am li leen ci aw turam di leen sant bu baax ci dundal gi ngeen dundal weer wi dundal gi ngeen dundal euh, weer wu mag wii ci wetu sëñ dundale ko ci jàkkaam ji nga xam ne ku ne xam na ne mooy jàkka ji nga xam ne ci taqwa la ko sose ussisa ala taqwa min awwal yawmin mu doon dundal goo xam ne nam ware defe ngeen ko ni ba bis bu ne mbooloo doge fi kon loolu lu réy réy la yàlla na yàlla nangul ñépp jéego yi ñu ci jéego yépp ak mboolem ñii ci jàpp ñépp yàlla leen yàlla nangul ramadaan nag moom lañuy ñuy tàgg ci cat li lañ ne tey wala suba ci lenn ci lay jeex ci ngëneel yi ngëneel yi baatin yi yoroon ak barke yim yoroon mooy weer wu baax wi nga xam ne di e, e, munaasaba boo xam ne wër te jaar ci ñun jàll te bayut jeexit ci ñun ci suñuy xalaat ak ci suñu dund yi ndax mooy weer bi nga xam ne ci la alquran wàcc mooy weer bi nga xam ne dafa ñëw ngir na ndax ku ne xam na ne ab jaam fi muy gënee jege yàlla mooy bu wooree nit ki nga xam ne buy julli lay gën a jege yàlla waaye ba mu ko gën a jege mooy bi muy sujjóot ci waxtu bi muy sujjóot ci la nit ki di gën a jege yàlla noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa aqrabu ma yakunu al abdu li rabbihi wa huwa sajid waaye koor it noonu la mel koor nag ndax bo bu bu ñëwee lim lay jariñ mooy day sellal sa bakkan dalay indil makaarimul axlaax makaarimul axlaax yooyu moo lay wër ba tax sa xel dina ci fuqaraaw yi dina ci miskin yi dina ci jirim yeneen bi àddina addis yu bari yoo xam ne day tegtale baaxu koor ak nga nee di koor wax na ne day dundal roo da koy suuxat day laabal bakkan day musal aw làmmiñ da koy day tàggat bànneeti te sëñ bi daana wax ne ku ne sa caabi àjjana sa bakkan sa bakkan a ko yor boo bëree moom ba daan ko rek daal jëf ci caabi bi kon bak yii da lay dimbale ci saxawaat yooyu nga mën leen tàggat dalay soññ it ci nga xalaat ñi nga xam ne ñooy jawxaay yi ñi nga xam ne dañoo xiif ñoo ñëpp seenu mujj nga di ko xalaat dana taxit sa iraadatu gën a dëgër moom koor moo tax sëñ bi fonk fonkoon ko fonk goo xam ne buy jub loo ko laaj mu jox la daal di koy tagg ay xaside xaside yoo xam ne mat na diiwaan wax ne yàlla boo dañ di far ay bàkkaar di faj ay aajo di dàq dàqu yeneen yi yeneen yi nga xam ne bokkuñ ci yépp yàlla na yaa ngi leen na nga leen yàgg dàq yàlla na nga yàggay njoñ seytaane ak li mu àndal te ñi nga xam ne ñooy def lu rafet nga di indil ak may safadu mooy ak may yàlla na leen yàlla yàlla na nga yàgg dàq dàq njàqare njàqare yépp yàlla na nga ko yàgg mboolem njàqare yi ne ci xol koor da koy dindi sëñ bi nee na nag mu ngi ñaan waxtu wu ne koor di ñu mën a dindi njàqare yooyu ne ci noonu ndax ab jullit waxtu wu dafa war a ragal fal jamhu bayna al xawfi wa rajaai la sëñ dox jullit dafa war a boole ragal ak yaakaar wa saaidan kulla amin ma nafuusu bihi min jóori muhnin waxtu wu yaa ngi yàlla na nga ñu indil ay bagaan yu bari yoo xam ne day dolli ci li ñu yàlla daa may ndax yàlla yenent bi ku ne xam ne tabe woon na waaye bu koor ñee day gën a tabe suñ borom it li muy maye lépp bu koor da ko yokku sëñ bi daal di ci waxaat ne yow weer wi nga xam ne yaa ci yow lañu yàlla maye laylatul xadr nga xam ne kon moom saxal na ne laylatul xadr ci koor lay ne inni uhibbuka ndax day lu borom xam-xam yi werante lu bari na inni uhibbuka hubba zaati za talabin min maliki fiika isaadan bila awadi maa ngi lay bëgg ni ñuy bëgg lool loolu kenn musu àgg ak koor di sàkku ci buur bi ak texeel mu di ma ko defal ci yow te bañ a jàngar lisab bi kaw nii abdallahi fiika bila xishin wa lisab bi anni tubtu min xawari nanga ma seereel fa yàlla ni jaamu yàlla laa te lépp lu dig doye maa ngi koy jéggi sir saa li rabbin laa sharika lahu fil mulk walhamdi rabbil jinni wal basir dellul ci yàlla mi nga xam ne ne amut sari ci dara ci nguuram la cantam gi it mu ci bokkaale cant cant gi moo ko moom moom dong dellool ko moom te seereel ñu fa bu baax a baax a baax suñu gërëm ak suñu cant kon laa silta dayfan kariman qad yubashiruni fi sirri wal jahri bi ihsani sabusi yàlla boo dañ di gan goo xam ne nag danga may bégal ci biir ak ci bitti ci lu kon loolu la sëñ bi daa eh, nuyoo koor ak di ko tàggoo kon liñ ci war a jànge mooy koor mooy di ko itteeloon moo moo ñu wan nees ko war a dundale moo moo ci daa jàngalu alxuraan ju bari juy sel di ci dundal di ci joxe ñam di ci dimbali nit ñi mooy ki nga xam ne bu masaa koor masaa ñëw loo ko laaj mu defal la ko soxna amin bisi daana ko wax bu koor di jub lépp loo xam ne wax nga ko sëñ mu ne la xanaa danga ma koy waajal sama gan daal la koy defal na nga ko bëgg kon nag nañ gën a tënku ci ay ndigalam gën koo foŋ te di ko yàkkamti ndax koor ku xam yonent bi nee na bu ngeen xamoon ngëneel li ne ci koor ngeen mëbét at mépp nekk nekk koor loolu la yonent bi wax ci hadiis bu ngeen xamoon li ne ci koor kon da ngeen di mëbét at mépp doonoon ramadaan ndax ramadaan mooy li nga xam ne moom képp la yàlla tudd ci alxuraan ci aw weer asharul hurum ku ne xam ne weer yu màgg lañ waaye yii ñëpp yàlla tudd ci benn shahru ramadan rek moo am ci alquran alladi unsila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min ñi koy woor ñaari xeet benn bi dañoo nekkoon ci lu baax waaye de ñetti xeet sax lañ koy tënk benn bi dañoo nekkoon ci lu baax koor ñëw ñu yokk ko gën a farlu gën a jëm ci yàlla gën a yokk naafil yi bu jàllee ñu gungi ko gën a farlu ci seen digganteeg yàlla naafila naam daanañ ko def waaye ñu yokk ko di dun defal taraweex yi ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy ñoom la yàlla di wax ci alxuraan wala si ne yootoona maa aataw wa xulubuhum wajilatu nannahum ila rabbihim rajihoon ulaayika yusaarifoona fi lxayraati wa hum laha saabixoon ñooñu mooy ñi ñi gën a kuréel bi kuréel bi man te gën a jàmbaare bi ci topp mooy ñi nga xam ne newoon nañ ci lu wër waaye bi koor ñëwee nag fas nañ ko def ab dabaatal xam nañ ne xol mooy xolub at mi bu yéenee lépp yéen ñu jiim a farlu jiim a góor ba mu jàllee fexe nañ ba mu bàyyi ci ñoom jeexit ndax koor bu jàllee lañuy xam sa koor nongu na wala nu nañ koy xamee mooy boo bu la jëmee ci jaamu yàlla jëmee ci topp yàlla soppi inxiraaf gi newoon ci yow ñu xam ne sa koor nangu na ni raasib yow am nga na jaax bu fekkee dafa jóg ker weer wi jox rek nga yow jàppoo ne eh, rabba haasa rabba haasa sari huwa rabbu huwa rabbu suhuri jàppoo loolu daal delluwaat te la nga newoon mooy bu ñetteel bi kooku mooy ki nga xam ne ak kooram jëlibu ci dara ndax raasib yàlla na ci yàlla musal kon li gën mooy ñu gën a jox suñu bopp yàlla gën a defaru gën a bu koor gi jàllee mu bàyyi ci ñun jeexit yoo xam ne danañ xam ne ni wutoon ci ñu noon waaye koor gee ko def ci noonu noonu la ko sëñ bi daa soññee noonu la ko daa waxe te bu jàkka ji da ci daa def waxtu wu ne ay waxtaan di tombal nit ñi di leen soññ ci yàlla di leen gën a jëme ci yàlla bind ko it ci xasaay bi nii mu ñu wax rek buñ ci saxee danañ mën a jariñu danañ mën a dund dundin woowu mooy wajtani boo ahwaa nafsin wabtidaa wastaxiloo fii kulli hinin bittibaa muy muy bànneexi bakkan nañ ko teet teet bi daa te soxlawoo topp sunna dell ñu wax ne laa taroomoo duxoola jannaati haddin bi ruxaadin wa lahwi wa shahawaati bu leen bëgga tabbi àjjana ci di nelaw yàndoor ak di fo ak di topp seen bànneex ngeen di ci wuti àjjana neen munta ne xasida gu safan seen bu xasida mu di ko jàngalo boobu man lam yurit say an siwaa mawlaahu yasil lahu wa xayruhu awlaahu képp koo xam ne dem nga ba bëggoo lu dul yàlla danga nga àgg ci yàlla loolu moo baax yàlla na ko yàlla defal bu ko defee tomb yi sëñ bi wax na ci jëli naa ko ci sëñ Demba Kebe ci ay tombam mu ne assalaamatu wal aafiyatu fi dunia wal axirati tatawalladaani min niyati l xayri wa fihli l xayri umulaasumati l xayri mu ne jàmm ak xaafiya mooy jàmm rek ñu ne bay ci àdduna mi ngi juddoo ci yéene lu baax ak jëf lu baax ak taxoog lu baax sëñ Tuubaa daal ciy teg ndax noonu la ko bindee daal ne loolu lépp rek boole nañu ko ci wenn bayit waxat jumihat fi baytin waahid in wi in wi waxul wafal in wi waxul wafal wala sim mukrama in wi waxul wafal wala sin taslimi mukarraman rumil xulaa bi kalimi sëñ bi dafa wax ne yéeneel lu baax tey wax lu baax tey def lu baax te taqoog lu baax wala sin taslimi kon da nga mucc mukarraman boo muccee ba noppi da nga dem koñ garal rumil xulaa bi kalimi sama ba sàkkul ak kawe ci baat yi ma wax jaar ci boo ci jaaree danga am kawet yi nga xam ne moom laa la yéene kon na ngeen xam ne koor balaa nangu da nga ciy jële taqwa yaa ayyuhaa llaziina aamanu kutiba aleykumu siyaamu kamaa kutiba ala llaziina min qablikum la'allakum tattaquuna rek inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal julli dafa mel ni li ko tax a jóg mooy tere ñaawteef ak lu bon bu bu sa julli nangoo rek day mujj dutoo mën a def lu ñaaw sa koor it bu nangoo da ngay am taqwa ndax illa illa jaamu yàlla bu ne yàlla wax na la tax la muy jur ci boo woccut yoonoo kon julli siyaam moom yu addi yi taqwa dala yóbbu ci ragal yàlla koor nag yàlla da koo fonk ba yenent yi jëkkoon yépp yépp yépp ku ci ne daanañ woor moo tax ma ne kama kutiba alal lazina min qablikum dem na ba xayawaanaat yi ci àll bi sax dañuy woor yi ci géej ci ba ci am na ci rab wu ñuy wax dubbul xot bi mu ngi nekk ci xot bu simal dana woor juróom-benn weer borom xam-xam yi seet nañ ko gis ko ne dubbul xot bi dana woor juróom-benn weer rab yi ci biir géej gi dañuy woor kon woor lu am njariñ la ñëpp xam nañ ne bi ko yàlla sant bi yonent yi njëkkoon ñëpp mu waa kër Moussa dañuy woor waa kër Isaa dañuy woor ñoom ñëpp dañuy woor waaye liñ ci jubloon bi yonent bi ñëwee nag la ko yàlla jagleel moom muy aw muy farata ci aw xeetam daal di ko koy séddee nag mu defal ko ci jagleel ko ci lu ko ko ci kenn jagleelu daal di ko ci wàcceel it alquran mu nekk xéedul milaadi bu alquran ndax ci ci ci lañ ko ko wàcceel ci biir weeru koor ñenn ñi dañu fukki fan ak juróom-ñaari werante lañ ci woon nag werante nañ waaye nag lu mu ci mën a doon daal ci xaaru Xiraa ci lañ njëkk a wàcce fekk mooy def taxannus mooy taxabut foofu la alquran njëkk wàcc ni iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka lakal mulk alama alama alama insaana kon yéen ngeen xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo yàlla dañu ko tawfiixale tawfiixale ñu ci sëñ bi yonent bi dara jaam taw tawfiixale ñu sëñ bi xaqaat nag day borom xam-xam bu mag dafa wax lu réeréerée dafa wax ne inna al insana allazi laa yara xasamata al azimi insanun laa yusaawi say an wa inna al mujtama allazi fiihi l kabiru fiihi saqiru laa mahaala nee na nit koo xam ne munta gis ka gën a ci àdduna kooku munta gis kenn ñi dëkk ak yonent bi te mënuñoo gis màggaayu yonent mënatuñoo gis leneen waaw naka noonu it koo xam ne ka gën a màgg mënoo koo gis ka gën a tuuti doo ko mën a gis loolu moo dal nit ñi ci yonente bi moo dal nit ñi sëñ bi kon yàlla bi yàlla tawfeexale ba ñu mën a gis sëñ bi war nañoo sant bi ñu ma yàlla tawfeexale ba ñu ba ñu xam daraje yonente bi ci liñ ci mën a xam war nañoo sant ndax xéewal yépp moo ñu ko indil kon ñi ngi sant ñépp bala maa tëj nag askuru askuru muqaddamatul xidma wa jamii al ulama alladina kaanu yulquuna al muhaadaraat fi l masjid al xadiim wa kulla man saahama fi mawaaidi l iftaar wa jamii al quddaami alladina kaanu yaxdimuuna fi haza al majaal wa nasalu llaha tabaaraka tabaaraka wa taala fi haza al masjid al xadiim alladi ussisa ala taqwa wa fi haza al yawmi al mubaarak an yakla a sëñ muntaxa wa an yaxfasana wa an yusaddida ala tariqi al xayri xutaa ala tariqi al xaqi wal xayri xutaana kama nasaluhu an yuhiida haasihi haasihi al ayaam ala al ummati al islaamia wa ala al basariyati jamaa bil yumni wal xayri wal barakaat wa kulla haamin wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullaah